la communauté mouride en deuil, euh, Serigne Atou Diagne rappelé à Dieu. Le responsable moral du Daïra Hizbut a consacré toute sa vie au rayonnement du mouridisme, l'enseignement des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, l'éducation, la formation professionnelle au sein du, du Hizbut Tarqiyyah est un engagement sans relâche pour la communauté. On marqué la vie de Serigne Atou Diagne. Retour sur le parcours de ce disciple mouride avec Abibou Mbaye. pur day nekk un nationaliste de classe exceptionnelle du koy wanteer boppam du koy fo du koy caaxaan du ko jubati nit ku yiw lay doon ku am farata du dox sax di gestu ci lu amul maanaam liggéey ak jaamu yàlla 1976 Atou l'étudiant, dans une rue de Dakar, à l'accueil du troisième général du Mouride, Sering Abdul Ahad Mbaké. Plus de 40 ans après, l'engagement était toujours au beau fixe, tant l'homme avait fini de choisir sa le mouridisme. Et c'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que Serigne Atou avait fondé le Daïra des étudiants mourides, au signe distinctif ample boubou baye lahat, martoumé et bonnet. Des étudiants formés sous la direction de Atou Diagne, dont les séjours répétés à Touba ont fini de parfaire l'éducation spirituelle, morale, religieuse, calquée sur l'orthodoxie mourite enseignée par les différents khalifs de Serigne Touba. Serigne Atou Diagne à plus tard radicalement transformé vers les années 90 le daïra devenu Hizbut Tarqiyyah. koo xam ne kii am nga kumpa ci Hizbut Tarqiyyah bisa ngi nii daaraa ngi nii gaañaa ngi nii wër lii mooy Hizbut loo ci nattable dana la wóor tey ku ne xam na ne teesante weesu nañ ko ndax ab soldat boo xam ne du wàcc guddi du wàcc bëccëg du teesante waaye yéen nit ñi ngir ñu bañ a tayal ci liggéey sëñ Tuubaa daan ko def suñu nit la ñuy waxal kenn du dajale mbooloo te waxoo leen lu jëm ci sëriñ bi mënut a nekk. selon la vision éclairée de feu Serigne Saliou Mbacké à son actif pour le compte du Hizbut Tarqiyyah une radio des ateliers de formation une télévision IP. au service du mouridisme, objet de son audience avec le chef de l'État pour l'inauguration dans la ville sainte de Touba. La ville de Touba, le mouridisme, que nous voulons vendre sur le grand rendez-vous euh, du donner et du recevoir euh, dans la perspective de l'accès universel à l'information. Elle va être une télévision qui ne sera pas du tout exclusive, mais inclusive. Serigne Atou Diagne est parvenu à poser ses empreintes indélébiles dans l'organisation du Grand Magal où il avait en charge un pan important dans la réception des hôtes venus d'horizons divers et les aspects culturels et cultuels marqués par la psalmodie des Khassaïdes, avec des mélodies répétées dans le laboratoire en chant religieux sur les œuvres de Serigne Touba, ou les courelles qui ont fini d'essaimer partout aux quatre coins du monde. Fatou Diagne avait consacré toute sa vie au mouridisme. D'ailleurs, il n'avait pas de vie, il ne respirait que pour le mouridisme et Cheikh Ahmadou Bamba. bopp waaye moo gën man xarek suñu bopp moo gën te te te te du tee lii dem dem ngeen xam ne man su ma jëkk su ma leen jiitu woon yéen ñii su ma leen jiitu du ma tuur deretu kenn daj àdduna kon liggéey baa ngoog nan xam ne fii duñ dëkku nu fi duñ fi yàgg allah kulli xaal dañuy dellu te liñ fiy def nii bi bàyyi ko fi mooy li nga xam ne bu ñu lemoon dënd bépp buñ dekkee dekkandoo moom ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli la yërmande wanale laag sang ba Seexuna Ahmadul Xadim suñu atum bii ku ko jooyu ti duma tee ma jooy ko fi jooyu xol aatoo ngi nii di ñu doo gëréer ki ñu daa jafal jom jaag ngoram gaag taalu beem ga ko buur defal sa waraw jëmam gën a ñaax murit bu fa soo dëggal pas-pas ba yitte ju ja diine da koo soxal dëgëram nga may na ko cër sëriñ ba da koo jëfal yaakaar ju réy doyloo sëriñ ba warooy alal diplôme ya xëy fa sëriñ ba atu da koo gënal fa nga jaar ba yeg si fi aatu mës la ju yoog ndigal ku ko xam liggéeyal bamba aatu na buur teral ku lu baax ñoroon la mu xéer te ku ma jaal ndigal ka ko daa teeru ci xin ma laañ la mawti jël waxi sëñ Mountakha jooju ma waxoon daane bu mu laal suuf maa ngi ciy woo képp kuy sol Baay Laat yëf yi bu mu laal suuf képp ku sopp sëñ liggéey bii bu mu laal suuf kii mu wàcce na ba noppi yëg na ko yëgu ko yëg na ko yëgu ko. dafa mel ne fi mu toll woon. dafa mel ne fi mu toll woon. li weesu gisatu ci woon dara. li weesu gisatu ci woon dara. ndax fa fa mu fa mu fa mu métti bu rëy. ndax fa mu métti bu rëy. fas yéene gën a liggéey seen tubaab. fas yéene gën a liggéey seen tubaab. foofu la demee. foofu la demee. nga xam ne yàlla moom day ful jëf. yàlla moom day ful jëf. jëf na te jëf na. te jëf nag. nee na la ca def nag. mooy am kilifa. mooy am kilifa. bu mat kilifa. bu mat kilifa. suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. mais suñu yaatu kilifa la woon bu mat kilifa. waaye sëñ Youssou Diop mii. nee na sëñ Youssou Diop mii. bu ma gisee sëñ Atou. bu gisee sëñ Atou. damay gis sëñ Youssou ci biir. day gis sëñ Youssou ci biir. bu ma gisee sëñ Youssou. bu gisee sëñ Youssou. damay gis sëñ Atou ci biir. day gis sëñ Atou ci biir. Youssou Ngom. Youssou Ngom. jërëjëf. kat ndax moom. daa doon jàmbaar joo xam ne kum ne ci sa kanam boo bëggut doxe da nga dox ndax daa dox loo ñëpp ndax day yemale ànd saa yow mu tàggu kon nag bu demee ba bàyyi ko bàyyi leen ginnaaw na ngeen xam ne am ngeen am ngeenu sas sas yi mooy fa mu ko bëggoon a ci xalaatam ngeen àndoon ko moom ngeen gën caa góorgóorlu ba li Cheikh Mouhamadou Mountakha wax keroog na liggéey bi gën a yëkkati ko di gën a kawe waaye bu mu laal suuf loolu nag rafet nañ ci jot ndax dañ leen ko fàggul sëriñ Tuubaa leen ko fàggul njabootu gi fi nekkoon fàggul leen ko mu agsi fii kon sëñ Yuusu dégg ngeen li sëñ Muntaxa wax keroog ci yow loola soxlawut sereen sereen nee fu ma gisee sañ aatu sama xel dem ci sëñ Yuusu fu ma gisee sañ Yuusu sama xel dem ci sañ noonu la ko Cheikh Mamadou Muntaxa waxee la koy jii nii ku la séen rek xelam day ci jëmmam te it wax naa la ko jëm ànd ak moom ci biir ànd ak moom ci biti amuñu lu ñuy bañ amuñu lu ñuy ñoddi amuñu lu ñuy jëñ man ak mbooleem ñu nekk ci daara ji sëñ Atou li nu àndeek moom moom sosu ko waaye gaynde la ci woon jàmbaar la ci woon am na ci médaille bu ne mooy lan liggéeyal sëriñ bi te bañ a bëgg bañ a bañ féetale sa lépp sëriñ bi loolu nag Mbàkke kon moom ci lañ fas yéene wéy kon nun man mii de nekk ci ñu ne maa nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah fu ma gessoo dinaa gis ñoo xam ne ku ci ne gis naa ci yow lu tax ma jàppoon ne maa war a topp sa ginnaaw waaye dogal bi jëw ñu ne man maa ko jiite jiite googu nag man jàppewuma ko ak pal ndigal dong laa ko jàppee ndax bu ñu ma laajoon du demee noonu waaye ginnaaw sant nañ ma ko nangu naa ko ndax man maa jaayante woon ne lu ñu ma digal naa ko def lu ñu naa ko bàyyi